am jàpp naa ne nekk na loo xamante ne nii lu lu lu lu am solo la. Mm-hmm. Euh, moom moo permettre tey ji ñu am victoire sur ce combat là. Mm-hmm. jàpp naa ne loolu aussi euh, taxawaay la bu bu am solo. Mm-hmm. très bien. ñu àddu euh, sans plus ci li ñeel kàddu yi Bougane yëkkati daal di nañuy xamal nee na moom mosula hésiter pour de soutenir ki nga xamante ne ni bii moo di. Ousmane Sonko face à l'injustice bi nga xamante ne ne bi euh, moom la doon euh, dund avec ki nga xamante ne mooy son l'oppresseur euh, l'oppresseur benn question rek laay laaj moomoo nga tontu ma si après ma avancé waaw ba 2023 Sonko ñaata nañ ko convoqué bëri na muy jaabante diggante tribunal cité kër góor gi leader yi ko daan gunge mës nga si gis Bougane mosoo gis. jamais Bougane accompagner Ousmane Sonko. mu dem wuy ji. voilà léegi mën naa continuer. Euh, Bougane dafa ni euh, lu mu wax sax je n'ai euh, je n'ai pas hésité à soutenir euh, Sonko face à l'injustice mais il a préféré négocier avec l'oppresseur. l'oppresseur maanaam moom mosul hésité pour jàppal tànk kii Sonko mais Ousmane Sonko dafa préféré dem négocier ak Macky Sall. dafa am ay leader yoo xam ni buñ ko waxoon man sama xel dina ci dina dina si dal maanaam bu fekkoon Malick Gakou moom moo génn wax loolu. dinaa si mën a commenter bu fekkoon euh, Déthié Fall moom mooy yëkkati la kàddu dinaa ci mën a commenter. parce que ñooñu à chaque fois bu procès amee ñoo daan jiitu sa saal ba. ñoo daan ñëw si kër góor gi noqi lacrymogène ba seen xool sedd. dem tribunal àggale ko foofu. Mm-hmm. ba naan coppet Ousmane Sonko di ko yóbbu. leader yi ñoo fa nekkoon. Bougane mës nga gis si si si si terrain bi. déedéet léegi nag ah tey la neex moom muy 2021 maa daan gunge Ousmane Sonko maa ko ma ma maa ko daan xeexal li nga xam ne nag moo di injustice. Mhm. Bougane na ba bàyyi caaxaanam bi ngir yàlla moom fi mu nekk nii Sénégal dañu ko dépassé bu yàgg. xam nga des fois nit ñi dañ naan euh, daw jàpp ci terrain moom waaw sax gisu ko gisu non non non sérieusement <laughs> yow <laughs> yow nga di yaa daan gunge Ousmane Sonko yaa yaa daan xeexal injustice te yow procès musul am ba nga dem. Bougane média propagande bi mu yor bi. tribune lan la daan bind si dossier Adji Sarr on rappelle très bien bu ñuy coupé revue de presse bi euh, euh, nu mu tudd sax Ahmed doon def. lan moo tax coupé ko lan la doon wax ci ci ci ci ci revue de revue de presse boobu fàtte xaju fi fàtte xaju fi nag génn ci li mu ne te jéem changé taxawaayam naam sax bay woy na mbuus léegi nag ci wàllum négociation bi foofu du ma du ma fa yàgg aussi. Mhm. parce que moom dafa dàq euh, négocier euh, Cap Manuel ni négocier teenu bàyyi soogi moo am. Mhm. man nag si kàddoom foofu laa mësee xam ni kon prisonnier dinañ ko génnee. Mhm. yóbbu ko ci ay hôtel wala ci ay tefes. pour mu toog di waxtaan ak euh, ak ko dugal ci kaso ba. Mhm. man ci Bougane laa ko xamee. donc nag euh, kàddu yi nga xam ne gis na ko man di wax dëgg yàlla du ma si du ma du ma si attardé wu. Mhm. xam naa dafa toog am amul lu mu wax rek Mati Touré mu wax que Mati la doon amal boobule boobule plateau moo ko invité woon. Mhm. moom la doon waxtaanal ci ci ci bile mbir nee na yàgg na taxaw Ousmane Sonko. bi mu demee ma xam ne Ousmane Sonko mi ngi négocier si la si la si la soot si mais Bougane moom daf c'est c'est un contradictoire parce négocier je pense bien que bu fekkoon dafay am. waaw 2021 lay am. pour mu négocier Macky Sall pour dossier Sweet Beauté bi nu teg ko suuf. am déet moom. waaw bu fekkoon négocier dafay am dina négocier ci wàllum diffamation Mame Mbaye Niang mm-hmm. pour nu bañ ko ci condamner. bu fekkoon négociation dafay am dina négocier pour nu bañ ko jël di ko yóbbu ci li nga xam nag moo di ci fële ca kaso ba. Mm-hmm. bu fekkoon dafay négocier bu mu defee li nga xam nag moo di grève de la fin ba naan Sonko mi ngi ci diggante dund ak dee foofu lay defee négociation. bu fekkoon dafay def négociation aussi bën ko barricadé cinquante cinq jours fameem borom sax mënul dugg ci li nga xam nag moo di ci kër gi mais foofu lay defee li nga xam nag moo négociation mais yow da ngaa bi nga génnee kaso c'est contradictoire ba ñu taxawal yeewi askan wi buggaan la moo tax bokkul yeewi askan wi parce nee na couleur yi fa nekk couleur Pastef la mais ku mën soutenir yeewi askan wi di nga soutenir Ousmane Sonko mais nañu waxan dëgg fàtte eh, xaju fi moom ca da daan def ay post fële ca Facebook am. moom combat ci Facebook la yam waaw ca léegi législative yi bu fekkee dina am dina am liste. non fa la doon soutenir ki nga xamante ne ni bii mooy Ousmane Sonko waay post bu mu def ci Facebook di soutenir Ousmane Sonko a eh, a a leer. Eh, da ka daan def Québec. waaw léegi nangu daan def daan bind moom daal soo nee rek mu daal di def post bi waaw mais léegi léegi ban ban ban journal moo daan génn di wax naka sudul noonu ci dossier Sweet Beauté <laughs> vraiment na nu delluwaat ginnaaw nu xool article yi tribune daan bind. Mhm. chronique yi nga xam daan na ko def ci matinal ba. parce que dama ko daan suivre. Mhm. émission matinal bi wallaahi daaw ma ko woon raté. Mhm. surtout seen RP dama ko daan déglu bu mu jeex. mais dikk boobaak léegi man si laa raxasu ba set wecc seen seen seen i mm. nee naa ku mënul soutenir yeewi askan wi. du ma bokk Yewwi Askan Wi lan seen couleur euh, vert blanc la dafa niroog parti Pastef mhm. wax dëgg yàlla du kooku mooy soutenir li nga xam ne nag moo di moo di Ousmane Sonko te am na lu mu wax nag loo xam ne xam naa daf ko wax mu rëccal ko te bàyyiwu si xel nee na dafay soutenir Ousmane Sonko parce que gis na ne ndaw ñi dañ ko jox bopp <laughs> tey mu tourné waat mhm. day ànd ak ñiy def marché jakartaay ak ambulant parce que jàpp nañ ni ñoom pare na si Sonko xool du bëgg di bañ. Mhm. mënoo nga voté président Diomaye ndax moom même pas 3 mois nga ne carrément pare ngeen ci Ousmane Sonko. donc nag wax dëgg yàlla ay wax ku ku ku daanu sareet la woon. yéen a euh, waxi naxa sa xandang. na naxa sa xandang naxa sa xandang <laughs> alors euh, euh, dégg nañu ginnaaw bi Cheikh Omar Diagne gis nañ mu daal di def ni kii weekend bi benn conférence. Mhm. mu am ay kàddu nag yoo xamante ne ni bi yëkkati na ko fa. mu bokk ci benn bi.